jéema way e Seex Abdu Xaadar Mbàkke ak doonte lot naa bi doona sakki moo doon na Bàmba tey donoom ci lislaam moo foog sunna moo nu doy fa sun amaam amul moroom nga ji mooy ki ko doon ku dib jullit seere na moo mat li mu doon ñëwam nga fii ci àddunaay sunu texe mi rey ku dul boroom doo ko fexe ci ay kéemaanam ak ay mbootam ganeem nga àdduna ba tax dañ ajuma ñetti fan ci weeru tam xarit la mbër ma feeñ seytaane tiit jàq bërët lislaam di ree ngir ab kenoom sampootina kéefar di joo mbirub sancam toxootina taarix ba ne caama jël sasin la woon daarul lalimi fiifin laam na xewe woon Cheikh Abdourahman mu yëgal Cheikh Bamba dikkam nga fii mbir maa ke baatin ba ak gana sem ci àdduna doy kéemaan Cheikh Bamba na ca lu tax muy ilimaan bés ba mu ganee àdduna lañ ndaw ca Sayxu Bàmba jëm jiitel naa raw mu daldi woo maam Ceerno jox ko tur wa wax ko moom ay mbir yu rii laaxar wa daldi na ko feeñ ngay del nag may naa la jula seen texe na dolli naa la ak koo seen texeem nga bul ko sikk ci darajey gan goo giri doora dikk moo tax ba maam ceer noo guddal yoona wa ngir bëgg ñépp am texee xeetam wa nee na ko gan gi am na ay maqaama yoo xam ne feeñtul lut bisub xiyaama kon gan gu ñëw